ba ci dëj yi ñooy jottali ba ci màggale gàmmu yi réew mi daa métti ci ñun dong nous lançons un appel solennel au président de la république son excellence Macky Sall. mais lan ngeen bëgg exactement. jàmm mooy rek ñu xaw a yoromal rek ñu dellu ca la woon ndax ca la nu nekkoon moo nu jik te moo nu yor yor suñuy kër xeexuñu xulóowul. da ngeen bëgg ñu jox leen ndimbal wala da ngeen bëgg ñu bàyyi leen leen tëgg. Ah, mais ndimbal jël kat ndax ñun géwél ci diggante communication culture lañ bokk si ñor. ci diggante ministère de la communication ak ministère de la culture bul fàtte ni ñun nous sommes le détenteurs de la culture africaine sans nous l'histoire est morte donc nag na nu dimbali jàppale nu fond force Covid yi artistes yi soxla nañ ko waykat yi soxla nañ ko danseurs ak musiciens soxla nañ ko communicateurs yi soxla nañ ko donc nañu jàppale lii rek la. mais pourquoi ngeen di marche amu leen autorisation. marche sunu booy bàyyil baatu marche. ñun marche ñu ñun ay géwél lañ ñun duñu marche ñun xuloo wunu xeexunu président la ñu delloo njukkal ak Aly Ngouille di leen gërëm di ko ñaanal di ko sant ci gestion bu rafet bii mu géré Covid bi mook mook le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lii ñu fi indi suñuy géer loolu daa mel ni oto gendarmerie gis nga siñor l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications